bonsoir salaamaaleykum mbokk auditeur ak auditrice su Rewmi FM dal leen nag jàmm seen émission sans filtre di jotaay ndaw ñi fii ci Rewmi FM lay amee euh, mercredi bu jot 15 euh, heures jàpp 16 euh, heures d'abord toutes nos plates excuses pour ce petit du ma ne ce petit retard sax retard bi c'est énorme donc dañu doon xaar suñu invité nee na egg na déjà mais ñun dañuy daal di tàmbali. Euh, Moustapha Sile le plus jeune analyste du Sénégal certifié par Mondial Coach ñu fi nar waxtaane euh, ndaw ñi euh, seen implication ci langum politique bi bi ci gën a euh, récente mooy Eh, gis nañ implication ndaw ñi ci élection locale yi ndax ab vague de politique bu yees moo fi juddu loolu lépp dinañ ko fi eh, waxtaane wala ndax eh, suñu partie traditionnel yi ñooy dem ba disparaître ci kanam tuuti dinañ ko fi dalal mu gën ñu indi ay leeral Mor Fall euh, sans filtre namoon na la ma bàyyi nga joon ceeg mbokku déglukat yi waaw nañ ma bu baax ci euh, li nga xamante ni moom mooy suñu rubrique actualité donte ñoo ngi doon euh, continuer di participer ci kii mais actualité bi nga xamante ne nañ doon andi suñu première partie donc namoon nañ ko baax a baax donc di jaajëfal ñëpp ñi nga xamante ñoo ñuy teewlu saa su nekk ci Rewmi FM ak suñu plateforme digitale lu ci mel ne Rewmi officiel sur YouTube ak Facebook Rewmi point com mm-hmm. Mor nga tënkal ñu rekk euh, actualité bi lan moo gën a fës jamono ji waa tey nag euh, dama koy accentuer ci li nga xamante ni moom moo amoon démb fi nga xamante ni moom mooy euh, ci benn hôtel de la place muy euh, premier forum bi nga xamante ni démb lañ doon def li nga xamante ni mooy training bi training nag boo ko déggee moom mooy naka la ñuy waajalee ndaw ñi pour ñu mën a waajal naka la ñuy préparer li nga xamante ni moom mooy mhm. phase bi ñu war def ak ñi mooy recruteurs yi mhm. mu mel ni nag démb nag comme ni ñuy faral di dégg ci way ñu naan dafa dem ba léegi sax ndaw ñi léegi seen liggéey moom mooy utum xëy mhm. waaw mu mel nag démb Euh, liñ doon yaakaar sax ci ndaw ñi daanaka dafa jéggi dayo ba ndaw ñi dañoo ñëw bëri fa trop trop trop. Mhm. moo nekkoon loolu. dañoo am yaakaar ci li xamante ni moom mooy mbir stage ñi mhm. mhm. am nañ fa ay CDD ñi am fa ay CDI ñeneen ñi am fa ay euh, contrat de prestation donc mu nekk loo xamante ni ba ñu euh, kii di jël nga xam moom mooy parole bi kii di Mbagnick Diop ñu koy nuyu au passage mu wax ne li ñu jot sax ci ren mos ko jot ci ay euh, CV lu toll ci cent mille CV donc cela veut dire que euh, base de bi nga xamante ni euh, MEDES am na ko ak fondation bi nga xamante ni moom mooy dox ci wàllu emploi aussi mhm. yeneen kii structure amuñu ko parce que cent mille CV a moins de deux mois sa baaram deux mois nga jot mhm. cent mille CV tey mhm. bu ñu ne woon par exemple deux mois wala trois mois ñaar loolu ban jàngat nga ciy def est-ce que kon tey ndaw ñi am nañu xëy fii Sénégal. non xam nga buñ nee ndaw ñi am nañu xëy ndax forum du premier emploi deuxième édition la n'est-ce pas. vingt et unième édition. vingt et édition. Mhm. nga jot en mois deux mois euh, cent mille cent mille cev waa xam nga xam bu nit ñu amee yaakaar ci leen xam nga am na benn structure yu fi nga xam ne dañuy joxe ay emploi te yaakaar naa mënuñoo am en deux mois cent mille cent mille euh, CV. donc cela veut dire euh, day wax ne kon ndaw ñu fi nekk nii ils sont à la recherche bi nga xamante ni du mu wax ne euh, lu ndaw mais recherche bu bu métti lañ nekk ci ci emploi mm-hmm. am na ñoo xam ne sax waxuma emploi sax mais nañu am sax benn euh, benn première expérience ci wàllu wàllu stage sax pour ñu am ko problème donc yaakaar bi nga xam ne am nañ ko ci forum bi donc mu mu wane ne kon ndaw ñi fu nekk nii foog ñu jàppale leen ci li nga xamante ni mooy wàllu emploi parce que métti mm-hmm. na ak nga jàng ba pare munoo am sax benn euh, demande bu ndaw boo xamante ne ko jàppale ki nga mën a am sa première expérience donc lii euh, nga xamante am na buñ ko dañoo mujj sax dagg sax li nga xamante moom mooy moom mooy parce que demoon nañ ba mënutuñoo jël ñëpp parce que bu ñu ñëwoon dañuy dañuy jël tous les cent mille a nga cent xajul fi nga xamante ne fa defee euh, forum bi saal boobu donc fi nga xamante moom mooy mooy mooy kin faat peut-être euh, li nga mooy jour euh, forum bi ñu war amal muy le 10 ak le 11 peut foofu il faut prendre des des milliers 10 11 février bi ñu jëm nii donc foofu mën a jël des milliers et des yoo xamante ku ñu nekk di nga am opportunité ñi am chance wax la ñi am chance teel déposé opportunité jàkkaarloog ay ay euh, am deux ba trois entreprises yoo xamante ni peut-être que ñoom dina nekk ci li nga xamante ni moom mooy seen domaine recrutement yi naka lay demee ci yan base lañ ko teg waaw recrutement yi la ne am nga am nga am nga entretien yooyu mais bii euh, da ngay toog directement ak ñi nga xamante ni moom mooy recruter. Mhm. nga mu pose les questions nga répondre hmm. ni mu waree te démb teg nañ leen ci euh, yoon bi nga xamante boo jàkkaarloo kii nag nga war a comporté woo naka war nga mën a euh, éviter yenn questions yi hmm. façon humorique parce que hmm. nit boo expliqué da koy jaaral noo xamante ni dina reetaanaale dina kiyaale donc ndew ñu comprendre naka la ñuy ji emploi parce que lu tëb tëb dañoo la am nga euh, li nga moom mooy benn entretien tëb rek yàkkamte dem alors que préparé woo ci ñi xamante ni mooy recruter nga mm-hmm. euh, euh, parce que boo mooy premier emploi euh, donc ñu ci ñu ci jaajëfal lekk ki nga xamante ni mooy Mbagnick Diop parce que je pense que vingt et unième édition boo xamante ni euh, chaque année ay ay ndaw ñooñu la jaaroon naa ci mm-hmm. euh, euh, am na ay ministres yu nekk ci biir mm-hmm. état bi yoo xamante ni jaar nañ ci ci forum de premier emploi donc ñu koy ci li nga mm-hmm. xamante ni moom lay def donc di dalal suñu suñu ki nga xamante ni moom mooy suñu invité du jour way voilà coach Moustapha Sy waaw ñu bàyyi la nga nuyoon teeg mbokku auditeur ak auditrice mi a FM alors anjubillah bismillah inan waliyallah salaamaaleykum wa rahmatullah noonu la ñuy nuyee képp koo xamante ne rek tey yaa ngi teewlu dañuy déglu à réew Rewmi FM 97.5 alors auditeurs auditrices bu mi FM ñu ngi leen wax salaamaaleykum wa rahmatullah di wax ne mbégte la tey dellu si fi nga xamante ne suñu këru bopp la et je pense bien que ne cette émission aussi dañuy faral di wax ne suñu émission bopp la pourquoi mm parce que yàlla dogal na nag ñoo gën a tuuti ci réew mi waaye ba ñuy dooreel émission bi ñun lañ amoon confiance ci ñun donc mm-hmm. loolu chaque jour dañ koy wax ne c'est une fierté mm-hmm. alors tey c'est un grand plaisir aussi de partager ce plateau avec ce grand monsieur donc di wax ne xëy na lépp loo xamante ne rek wax nañ ko fii muy xam-xam dina doon loo xamante ne askan bi moom la ñuy taataangal mm-hmm. ngir ñu ubbi seen gët mi di yaatal seen xool donc Sylvie c'est un honneur un très grand plaisir de venir répondre à cette merci beaucoup mustapha si may fàttali mbokk déglukat yi moom laa fi njëkkoon dalal ba ñuy hmm, door émission bi fii ci euh, Rewmi FM ma koy jaajëfal bu baax ci loolu mu analyser woon fi lu am solo donc euh, depuis euh, du ma ne début campagne bi sax jamono yële ay mois ci biir hmm, hmm. ci ginnaaw ñu ngi doon def li nga xam ne moo di la promotion des jeunes candidats yoo xam ne ñoo war a dem ci jongante élection locale yi côté boobu je pense que def nañ suñu wàll mais tey gis nañ ci élection locale yi jeunes yooyu nga xam ne ñi ngi doon def seeni promotion ñu ci bëri dem nañu ba ñu ci bëri tey doon nañ ay maire tey loolu lañ fi fas yéene waxtaanee coach suñu bàyyi la nga defal ñu benn analise ci euh, parti euh, ci parti politique yi nga xam ne tey euh, ñoo fi toog gis nañu parti au pouvoir koppar yi nga xam ne génnee na ko ngir mu dem élection gis nañ ñi nga xam ne amuñu dara ñoom ci ay collecte la ñu doon compter pour dem élection tey mu mel ni askan wi tey du xaalis mooy tax ñuy voter alors euh, merci Sylvie di wax ne tey mbégte bu rëy la pourquoi parce que je pense bel et bien que ne wax nga ko ah. tey suñu suñu suñu Sénégal gii ñu nekk on peut dire que ne c'est un Sénégal devenu très conscient et que tey dama wax alhamdulilah pourquoi je le dis je me rappelle bien euh, depuis 2006 à travers les télé les radios yi ma doon def émission je parlais toujours de la participation des jeunes dans les de prise de décision parfois ñenn ñi dañ doon est-ce que coach nekkatul di politique yow mi sa ñëw naa si émission nit wax ma ne est-ce que mm. coach lancé bi ngay lancé est-ce que c'est pas que ne tu es devenu politique je suis politique certes mais je ne fais pas partie d'aucun parti au moins que dañuy travailler dañuy ñëw la label on travaille dans la stratégie de communication je travaille avec pas mal de partis mm -hmm. que ça soit au pouvoir que ça soit opposant parce que nag sama gagne-pain la si laay dund mm-hmm. alors je dis bien je me rappelle euh, bu ma musaana wax que ne ndaw ñi nañ accéder dans les instances de prise de décision am na ñenn ñoo xamante ne dañu wax yan ndaw ngay wax et aujourd'hui alhamdulillah ba le Sénégal ubbi na ay gëtam xool na ne réew mi ñu nekk muy Sénégal c'est une population très juvénile parce que boo dee seet soixante quinze pour cent de la population ay ndaw lañ maanaam mm-hmm. téeméer boo jël juróom-ñaar fukk bi ak juróom dañuy nekk ay ndaw mm-hmm. ce qui explique ne tey xëy na defoon nañ erreur bu ngandee mooy boo demee ca assemblée amuñu ndaw buñ fa mun a wax ne wala un jeune mm-hmm. mais def nañ benn rattrapage par rapport ak élection yi parce que élection yi non seulement tey si candidat yi on de jeunes et gis nañ it am na ay ndaw yu toog mais ba tey dafa des. Hmm. pour je le dis que ne dafa commencé nañ yeewu. waaw commencé nañ yeewu mais mun nañ gën a yeewu xam nga lu tax. bëri na ay mag yu ñu jiital boo leen laajoon seeni diplôme la muy jëriñ ci askan bi am na ndaw bu topp ci ginnaaw bu am diplôme boo xamante ne moom la askan bi gën a soxla donc c'est quoi le problème. alors c'est quoi le problème mun na large mais je pense bien que ne du lenn loo xamante ne dañuy dem de midi à quatorze heures pour cesser le problème le problème c'est mhm. quoi mooy que ne li xew léegi-léegi ñu gis ko ci élection yi passé mooy ndaw ñi gëm seen bopp xam ne tey dans les instances de prise de décision ñun ñoo fa war a nekk parce que mhm. tout ce qu'on fait pour moi sans moi et contre moi mhm. mënuma comprendre tey docteur lu ma ay ay ay ay boo ñëwee dalay laaj luy jàngoro kon c'est-à-dire que ne nit ki la lay métti yaa ko mën a xamal sa bopp kon ci paj boobu yow yaa siy jiital sa loxo et que tey c'est la remarque qu'on a eu à faire et que je me dis bien que ne pourquoi mu wax ne des na pare que on aimerait au Sénégal comme ñun ñi nekk tey Union africaine soo demee si yeneen dëkk yi tu vois nekk ministre jeune la mhm. tu vois benn benn benn exemple au Togo da ngay dem c'est da ngay dem si Maroc da ngay dem pareil le Maghrébiens tu te dis y a une personne qui se présente te dit que je ministre tel nga laaj ko atam mu leen c'est moins de trente cinq ans c'est ça et pourtant ñoom boo dee par rapport ak population bi da ngay sentir que ne ay cinquante cinq pour cent ñooy nekk jeune mais au Sénégal c'est autre chose parce que ne je te dis c'est soixante quinze pour cent moo nekk ndaw quand est-ce qu'on aura ministre boo xamante ne ci ministre yi je dirais bien que ne quand est am ci benn corps ministériel ñu ne voilà voilà un jeune ci est devenu ministre et ce qu'on dit jeune fois attendez y a des personnes âgées plus de trente cinq ans gis ne soit seen taille seen personnage boo nee ne jeunes yi aussi jeune du ñu jeune. gis naa ko ci élection yi y a des candidats on dit candidat jeune et boo xoolee ban jour la judd tu te dis que mais comment ça est ce que nit ñi dañoo yaakaar ne jeune mooy koo xamante ne rek waa tu es bien sapé. classe ne mais jeune c' est moins de trente cinq ans. jeune mooy moins de trente cinq ans alhamdulilah pourquoi une fois alhamdulilah xam nga euh, bu ñu delloo ginnaaw ñu xool Sénégal ba woon si parti yi sax soo delloo mm. jeunes yi dañ doon wax comité jeune déjà ce qui fait que ne def nañ benn barrage par rapport ak lii. foofu laa nar a ñëw sax dañuy ne comité jeune. absolument ña fa nekk am nañ quarante cinq ans. voilà et que et que et ñun euh, par le de plan international bi ma nekk. on a eu à avec pas mal euh, de, de collectivité locale euh, locales euh, territoriales autant boo dee seet euh, ci maire yi ñu doon liggéeyal. parfois dañuy ñëw nga dégg kii mooy secrétaire général de la jeunesse ci maire bi tu te dis que ne mais attends c'est un vieux ou presque vieux donc est-ce que est-ce que du dañoo doyadal ñi nga xamante ne ñooy ndaw ñi mais tey gis nañ que ne léegi maintenant les jeunes wala ñenn ci ndaw ñi euh, commencé nañoo am conscience que ne xam nga man mënuma comprendre nga jàng nga am xam-xam nga am ambition pour sa réew que tu sois une personne bien déterminée et que mu am yu bëri yoo xamante ne yaa ko war a changé si sa biir réew ngay topp ci ginnaaw koo xamante ne jéem na jéem ba sonn et que day continuer di jéem jéem pour ànd ak yow di jéem alors que yow la mun a seddee nag bàyyi la nga jéem et que am tey boo dee seet euh, c'est la remarque bi nga xam moo amoon parce que. mënatuñu wax moo ama on a on a on a fait la remarque très sincèrement il faut que ñu ñaan yàlla rek na continuer ni et nit ñi les les les jeunes le dis parce que man je le dis à parfois que certaines personnes me posent la question à savoir que su quand est-ce je le dis ne quand est-ce que tant a ngi wax pare woole parlons de comment cest à du contexte dafa jot bu yàgg. Mhm. question bi du kañ la dafa jot bu yàgg. mais il faut qu'on se dise comment et que tey boo dee seet bu ñu delloo ci parti nit ñi dindi nañ benn barrière mooy comité des jeunes léegi santé nañ ni dañ na mooy voilà parce que léegi ay jeunes ñooy jiite non c'est-à-dire ay jeunes ñooy nekk mm-hmm. leader de parti et c'est ce mm-hmm. qu'on attendait de ce pays du Sénégal dañoo waroon dem ba naan soixante pour cent des partis mm-hmm. se sont dirigés par des jeunes voilà c'est-à-dire l'attente c'est c'est ça résultat boobu jour bu ñu ko amee nag dinañ commencé wax ne léegi maintenant ndaw ñi am nañ conscience parce que tey je le dis bëri na ay ndaw yooyu gis yu am bac plus tel yu am benn domaine boo xamante ne dañuy sentir que ne ñii ce sont des leaders dans leur domaine boo si ñëwoon ay compétences yi ñu toogaale xam nga xam nga je me rappelle euh, pour la première fois bi ma président Macky Sall recevoir woon donc moom il se posait la question comment se fait-il que j'ai 18 domaines je dis que ne bon je suis au niveau de l'Union africaine je vais apprendre j'ai fait des voyages man xaaruma kenn ci lenn xaaruma ci état les concours que j'ai gagné xaaruma kenn ci lenn pour pourquoi parce que xam naa ne tôt ou tard sama réew laa ñëw sotti ko mm-hmm. tey bu ma nekkul si parti combien de jeunes yu yaa formé mais boobu nit bu ne am ba objectif c'est-à-dire mission ambition mon objectif c'est quoi c'est de changer le comportement de la jeunesse sénégalaise parce que tey su ma koy def ci yeneen dëkk africain bay say weewu tànk certes bien ordonné commence par soi-même mm-hmm. donc le choix c'est pas wallahi lazim si si campagne boo dee seet Euh, y a y en avait des yoo xamante ne yu nekk au pouvoir comme ñu nekk euh, ci nga xamante ne opposition ñëw nañ sama bureau pour ñu liggéey comme si corrompre laa koy mën a tuddee parce que xam nga nit bu amee objectif am mooy du parti moo ñor c'est le changement de comportement de la jeunesse moo ma ñor quand je fais des foy des voyages un peu partout au Sénégal pour pour def ay séminaires pour def ay partage c'est pas c'est pas que pour ma am parti politique non j'ai pas dit que ne je suis apolitique mais je dis bien analise bi ma doon déjà ça m'a permis def na benn barrière pour ma am appartenance politique parce que mënoo di toog di wax ci politique ñuy sentir que ne bii partie nga bokk si veut dire que ne es fausse et que man je ne suis pas une personne fausse mm. je suis une personne bu am ambition je dis tey sant yàlla encore une fois alhamdulilah bi ndaw ñi xamee lan la ñuy jariñ ci biir réew mi xam nga xam nga tey tout à l'heure j'ai entendu le grand il bien dit xam nga li li c'est-à-dire c'est si Sénégal bi ñu bokk mooy ndaw ñi dem ba toog autour de la taable nekk di waxtaan ci benn sujet boo xamante ne réew mi la ñoo te gisuñu si benn vie buñ si yaakaar c'est ça en fait l'objectif c'est mooy naka la ñuy def ba Sénégal gii nga xamante ne ndaw ñu ñoo fi ëpp ndaw ñi fexe nag ba changer comportement parce que bu njëkk ba boo daan wax ndaw ñi gars jàppee nañu mooy ñi nga xamante ne si xeex lañ leen di woo mm-hmm. si seen doole lañ soxla woon si ñooy xamante ne ñooy yàqkat yi mm-hmm. si ñi nga xamante ne mais léegi ndaw ñi ñoo wax c'est-à-dire il est temps que nag ñun ñu jóg imposé wu changé xar kanamu Sénégal wan ne le Sénégal bi ñu nekk c'est un Sénégal boo xamante ne c'est composé des jeunes très patriotes c'est composé des jeunes très conscient c'est composé des jeunes yoo xamante ne tey prêt nag à changer le comportement des Sénégalais mm je pense que bien que ne ci foofu lañ toll et que mm-hmm. tey buñ ko continuer am nañu yaakaar bu baax que ne Sénégal dina doon réew mi nga xamante ne moo raw ci Afrique par mm-hmm. rapport ak comportement bien euh, sûr euh, sëñ ñëw ci euh, ñaari mbir yu am parce que nga wax le quand ak le comment parce que ba le quand boobu je que ba léegi des na su ma mënee wax sax benn su ma a jàngat dafay wax ne temps bi dafa xaw sax dafa cas bi dafa xaw a partiel parce que euh, ñu ci bëri ñi nga xamante ñooy jeunes yi nga xamante ne instant bi dañoo dañoo conscience c'est juste que dafa am euh, benn euh, élément bu ba ñu ba mën a ne instant bi ils si buñ buñ leen def benn benn comparaison mën nañu wax ne c'est seulement pour cent de des jeunes yoo xamante ne instant bi ñoo conscient ne mënuñu demal seen bopp leer na ci li nga xamante ne mooy élection yi mais ba léegi ndaw ñi ba léegi pour ñu gëm seen bopp ne waruñu mën demal seen bopp il faut ñu topp ci ginnaaw kenn pour mën a mën a am porte Euh, Dantec laa mën a wax. parce que euh, lépp lépp lépp euh, ñee ñoo ko centralisé. Mm-hmm. buñ la xajalul doo mën a ñëw donc yow boo boo mënee def juste benn analyse ci. comment boobu nga xamante ne moo nga wax parce que comment bi ndax dañuy ñëw dëjjati ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñoo yor porte yooyu dajji porte bi ñoo dugg par force wala boog nous sommes obligés di di nax naxal ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy suñu mag yooyu mm-hmm. euh, parce que wax nga sànq ne euh, euh, convention yu bëri xama convention xama comité dañ koy wax de jeunes yu bëri fii mm-hmm. dañ naan dañ naan ay jeunes fa nekk mais mm-hmm. ay ay ay paa fa nekk absolument damay jox exemple li nga xamante ni moom mooy moom mooy COJER bi fi nekk da ngay gis ñu ne ki nga xamante ni moom moom moo jiitee COJER kooku il a plus de 40 ans ne moom ba léegi nangoo bàyyi li nga xamante ni moom mooy moom mooy

temps il veut se euh, se révolter contre eux ñu jëm ko euh, daal di naj ba nga xamante ni jeune boobu day mujj découragé li nga xamante ni mooy politique. alors regarde quand quand le comment xam nga ak le quand wax nga ko léegi léegi ah boo dee seetlu je fais juste benn remarque par rapport ak euh, élection yi passé si samay étudiants yi nga xamante ne maa leen formé yi nekk ci région yi am na ñu si bëri ñoo xamante ne jël nañ seen téléphone woo ma nee ma coach kan nga yaakaar ne laa mën a àndal cela veut dire que ne déjà mooy xëy na ay nit la yoo xamante ne pare nañ pour ànd ak nit mais it ñu ngi xool ci ban jikko ci ban comportement. Mhm. et da ngay xool peut-être euh, xëy na secteur bu ci nekk. dina am benn personne entre guillemets un peu idéale je sais pas dina am benn personne boo xamante ne xëy na tey soit commune miin porox ndool yi la mhm. keneen la koo xamante ne mun na la ginni kenn la koo xamante ne mun na la yóbbu mais je préfère toujours comme ni ma koy waxee Sylvie parfois su may def émission téléphonique je bien que Sénégal bii mu ñu nekk il faut jeunes yi di entreprendre il faut jeunes yi di dem seen yëfu bopp ba pare gis nga xam nga tey yow mi soo amoon sa bërëb boo moomal sa bopp sa liggéey boo moomal sa bopp mu leer na leer yàlla bu weer dee yaay fay sa bopp sa ñàkk moo lay fay sa liggéey moo lay fay kon tey ka nga dem du am benn yebel bu mu la jox ba tu peux oser dire la vérité da amul manière parce que vérité amul couleur di nga mun a taxaw fëgg si table yi comme ni ñi ni ñuy fëggee parce que du la yàpp da ngeen ànd ànd boo xamante ne ànd bu serré la ànd dëggu la ànd la boo xamante ne tey yéen ñaan ñëpp yéen a bokk même ambition pour changer maintenant ce qui se passe mooy lan bëri na ñoo xamante ne ñi ñuy ànd déjà prix koppar lañ la gëmloo yow it koppar nga ñëwee si ñoom mm-hmm. sukkali lañ la gëmloo sukkali nga ñëwee si moom et je le dis il faut ñaata jeune ñaata homme politique tey nga gis ñu woote ay parti te tëdd nañ ci ay milliards tabaxuñu benn entreprise pour jël ci ay jeunes boppare mhm. xam nga xam nga le problème il faut qu'on le dise soit muy nekk ki nekk au pouvoir que ça soit muy nekk ay opposants mhm. am na des têtes yoo xamante ne tey ñu ngi Sénégal ñu ngi woote ci ëttum politique toog ci ay milliards te juguñu entreprendre maanaam xam nga lii olof di wax ne cin bu naree neex bu baxee rek dafay xeeñ. Mhm. bëri na ñu woote tey campagne jëlee ay millions joxe ko au moins frais bi si def. amoon na benn petite entreprise mu mënoon ubbi sukkali lu mu dee dee vingt voire trente personnes yoo xamante ne mun nañ jàppale yeneen trente personnes est-ce qu'ils l'ont fait xam nga maanaam euh, je parle de manière analytique ah je l'ai dit xam nga tey pour sukkali sa gox pour sukkali sa réew bay say wewu tànk certes mais nag dañuy faral di wax ne looy woote rek na fekk nga nduru ko am na ñu bëri ñoo xamante ne à travers les textes à travers leur communication à travers leur discours la ñuy changer fexe changé le comportement mais si acte defuñu ko parce que nag man dama mënul comprendre tey su fekkee denc nga cinq millions bi nga mën a jël yëkkati pour ñu dem campagne pour ñu mën a dem leneen wallahi azim am na benn deux millions bu mën a xaar pour une petite entreprise boo xamante ne mun nga embaucher pour wàññi taux de chômage est-ce qu'ils l'ont non mais lan lañ préféré woo nit ñi ci ay ñaxtu woo nit ñi ci leneen perte déjà am nañ problème emploi ñi jot a liggéey sax perte loo leen seen heure de travail pour wàccee leen sûreté il faut que man <laughs> j'ai eu à visiter d'autres pays africains par rapport ak nit ñuy politiquer ñun suñu politique dafa sa dafa dafa xaw ndës de trop quoi c'est-à-dire très amateur et pourtant par rapport ak wallaay Sénégal boo boo boo boo dee seet soo soo soo demee si yeneen dëkk yi di nga xam ne am na lu bëri lu ñu leen rawee c'est-à-dire su euh, si si grand titre xaalis am na lu bëri loo xamante ne rawee nañ leen démocratie par exemple am na lu bëri loo xamante ne rawee nañ leen tey ñun. nguur am na droit wax mais it askan bi am na droit révolté wu mais xam nga tey am na ñeneen ñoo xamante ne aussi di ñett su askan bi révolté rek yaa ngi dégg la guerre c'est autre hmm. chose yoo xamante ne moo am xëy na daluñu amuñu ñun amul si suñu réew mais il faut que très sincèrement je le di y a des personnes de haute facture yi nekk ci biir réew mi des personnes yoo xamante ne hmm. tey ñu ngi woote def engagement politique bien sûr pour wax ne dañuy changer le comportement du bien sûr mais nag lan la ñu teg loo xamante ne jox nañ la confiance ba nga mun a wax nañ ñi ay leneen donc il faut que ñoom itam ñu revoir yooyu noonu Sylvie. Mhm. Euh, coach est-ce que kon dans ce euh, beneen façon beneen xar kanam politique nekkul di juddu. waaw xam nga bon on peut avoir xëy na mun nañu yaakaar mun nañu yaakaar beneen xar kanamu politique moo ngi juddu mais xam nga tey. Euh, sénégalais damay def benn remarque daloon na ab Ablaye Wade te boo dee seen moom moo dal Macky Sall ci élection yi passé mooy dañu lay fan fal la fan wutuñ la dañ lay folli et buñ la waree folli ku ñëw rek dañuy jàpp benn nit ne yaa fi sës yaa baax san même visiter lan mooy sa compétence sans même visiter lan nga mun a réew mi cest à pour problème la loolu mooy ëllëg si biir yow moom dinañ la folliwaat pour beneen personne boo xamante ne defaat na buzz judduwaat jëlaat moom la ñuy jox il faut que nit ñi di def jàngat par rapport ak compétence il faut que nga xam nit ki cest à est-ce que ci domaine bi muy nekk parce que parce que moi je le dis ah su fekkee yaa ngi bëgg a yor réew nga am benn domaine ci réew moomu domaine boobu ci Afrique wër nga këpp amul ñaari dëkk wala ñetti dëkk yoo xamante ne wóolu nañ la ba mun laa sax ñëw di la côtoyer mooy aayagoo xamagoo dara non il faut qu'on le dise cest à il faut que la personne soit international mu doon nit boo xamante ne si sa xam-xam tey ñaari dëkk sax wala ñetti dëkk bàyyi nañ la xel benn mhm. et beneen bi mooy est-ce que yow ci sa réew mi nga nekk nag ana lan nga changé ana lan nga sukkali mhm. il faut gis nga ñun ñooy ñu ko war a wax parce que ñun la yàlla nattoo ñuy wax ci média ñun la yàlla nattoo ñuy déglu te nattu bu rëy la parce que xam nga tey am na koo xamante ne nee naan Sénégalais da lay fan c'est am na koo xamante ne coach Taflo pour moom lu mu wax dëgg la y a des personnes yoo xam pour ñoom monsieur si moom wax na c'est bon coach moo wax et que le problème c'est pas coach moo wax faisons benn analyse par rapport est que li coach wax na est-ce que li coach na ko est-ce que li coach wax jëmale na suñu réew kanam il faut que ñun ñuy xool discours bu mu munti doona ah, discours bu mu munti doon bu mu munti doon que ça soit muy religieuse que ça soit muy politique quoi que ce soit il faut que nit ñi comprendre discours bi ana lan moo ko wund discours bi le pourquoi mu jug wax discours bi ban njeexintal lay am est-ce que njeexintalam boobu ci résultat boobu dina am njariñ su boobaa mun nañ taxaw di wax donc ñun ndaw ñi et je répète bien je dis ñun ndaw ñi y compris nag les femmes ñun ndaw ñi ñun ñoom moom Sénégal mais comment ñun ñoom moom Sénégal ci kaw ñun ñëpp ñu jug am engagement ci kaw ñun ñëpp ñu jug am détermination Sénégal ba léegi dañoo lajj ci politique tànk amuñu benn parti boo xamante ne gis nañ la parti la te ndaw moo fa jiite je di bi bien ndaw une personne boo xamante ne moins de trente cinq ans tant que amaguñ ko ñu ngi topp ci rek ci mag par exemple euh, je, je le dis pour rien c'est un ami c'est un frère Ousmane Sonko par exemple tey moom mooy le jeune bi gaa yëpp jàppee ndaw mais pourtant Ousmane Sonko suñ ko falee en deux vingt quatre du nekk si président bi gën a jeune Sénégal Macky Sall moo koy gën a nekk jeune par rapport ak at ma Macky Sall faloo ñaar mm-hmm. at bi mu faloo mm-hmm. non il faut xam nga xam nga c'est-à-dire na gaa yi def yooyu remarque j'ai pas dit nag de ne pas faire le choix sur la personne de Ousmane Sonko. Oui, parce que c'est un ami c'est un frère je peux même c'est un oncle c'est un quelqu'un boo xamante ne on se on se parle man mm. man aw ma sens interdit avec les hommes politiques wax naa la dama am sama bureau je travaille avec eux sur la stratégie de communication sur la gestion des projets et tout ça mais nag je le dis il faut que ñu wut ñun Sénégal ñun ndaw réew mi benn ci ñun boo xamante ne nit ñi dinañ am yaakaar ci yow. et que yow moom yaakaar bi ñuy am c'est à travers say compétences à travers say actes à travers say faits et ñun ñi lay wudd ñun ñiy ànd ak yow ñun ñi lay woolu ñu doon ñoo xamante ne duñ topp si yow rek naan la yaa ma neex mm-hmm. mais c'est des personnes stratégiques des mm-hmm. personnes yoo xamante ne dinañ am potentiel lu ñëw wax la ne eh saa waay nii wala est-ce ñu woon nii du baax ñu dajale nag l'ensemble des idées pour un projet boo xamante mooy sukkali Sénégal defe naa mm-hmm. foofu lañ toll mais si si loolu est-ce est-ce que jeunes yi jeunes a wax jeunes entre guillemets est-ce que mën nañ def la distinction entre benn beau-parleur ne leen man euh, xam naa am naa diplôme boo xamante ni mën naa ma développer wàllu euh, tout ce qui est collectivité locale donc boo ñëwee di leen ni c'est un beau parleur ba euh, dëkk wala boo ko Sonko doit partir wala telle personne nga xamante ni mën nañu wax les jeunes yi nga ji est-ce gën a déglu ki nga xamante ni mooy ñëw naan leen boo ma joxee sa sa sa sa sa sa defal développement temps gis naa léegi léegi lii est-ce nekkul beau parleur yi moom moo bëri ci dëkk bi ba tax jeunes yi mënu ñoon def distinction compétition entre euh, ñaari type de de politiciens yooyu nga xamante ne ci ci euh, dans dans euh, la partie jeunesse la mën a wax mën a wax. xam nga xam nga tey ci ci ci àdduna je l'ai dit je prends pas l'exemple ci Sénégal rek ci àdduna dafay am ñetti type de personnes yi am ci réew. am na nit boo xamante ne développement rek moo ko ñor maanaam sukkali moom xoolul politique ak leneen ak leneen développement rek moo ko ñor. am koo xamante ne développement ñor na ko mais à travers la politique la koy defee mm. am kenn koo xamante ne benn simple spectateur la amateur bu toog di consommer ñoom ñaar ñëpp kii def ci développement day ànd ak yow kii def développement politique yi day ànd ak yow mais xam nga tey euh, su ma xoolee élection yii nii j'ai reçu pas mal d'appels si de des des personnes yi nekk ci biir réew mi laaj ma ban mairie laay laaj parce que xëy na gis nañu maa doon casse les jeunes dans les instances de prise de décision ci non commune bi ma nekk présent je prends l' exemple ci ay communes yu ma wër mais je prends juste l' exemple ci commune bi ma dëkk muy Djiddah Thiaroye Kaw tey depuis bi ma intégré plan international boobu maa ngi jàng mais tabax naa fa hôpital sous mon nom école yi manqué na table ba def naa ko sous mon nom est ce que politique a taxoon non boobu xalaatuma woon sax que ne man dinaa nekk benn personne bu ñuy coow ci Afrique xalaatuma ko woon mais yàlla moom mooy chance ma nekk ci benn projet benn ONG boo xamante ne mun naa liggéey ak ñoom ay ay ay pavage yu fa nekk ay kiiw drainage yu koo xamante tey bu tawee ndox bi gisatuñ ko ay espace public yoo xam yoo xamante ne def nañ ko fa mais est-ce que le but c'était que ñu def ko politiquement non maanaam boobu développement moo ñu ñor tey nag ci réew mi ñu nekk Sénégal mooy par la force par A ou B même booy def développement jouer dans le politique pourquoi gis nga euh, ci politique bi ñu nekk tey par exemple j'en suis sûr et certain ne yow am nga benn politique de développement booy def boo yéene Sénégal boo bu ñu ubbi woon sa xel ak sa non sa xol bu ñu la déglu dinañ xam ne yow mii ku pare pour sukkali Sénégal nga Sylvie naka noonu mani naka noonu mais suñu problème mooy ñun déjà dañoo am complexe je wallahi jugal nga dem si suñuy moroomu jeune yow en tant que jeune mm. nga taxaw jàkkaarloo ak ñoom dina am ñetti façon personne booy gis. Mm-hmm. dina am un quelqu'un qui se dit que ne voilà une personne comme moi macha allah il ou elle parle comme moi non kii ñoo bokk même bëgg-bëgg par contre dina am keneen koo xam xam la kii ku soof la ku ko far rek la bëgg. Mm-hmm. xamul boppam xamul boppam déjà mu ngi lay déstabiliser ak un quelqu'un boo xamante ne du la déglu juste dafay xaar pour naka la lay poser benn question pour jëm la fakk. pour jëm la pour jëm dagg say tànk pour jëm a rendi say cër pourquoi parce que c'est dit que ne noo xaaral ma xool ban compétence la am certes gis nga dinaa la wax Sénégal dina développé ah allah parce que parce que dafa am ay ndaw yu fi nekk yu am gëm-gëm dafa am ay ndaw yu fi nekk yu am pas-pas dafa am ay ndaw yu fi nekk yu am ambition mais nag tant que benn esprit dindi wuñ ko si ñun man boo dee seet quand quand quand je vois benn jeune bu nekk sama kanam tu parles bien en tant que coach en communication. non damay échanger ak yow contact nga am un bon projet tu le dis en tant que coach en gestion de projet damay échanger ak yow contact xam nga pour lan juste pour wax la ne jour boo ma soxlaa je le fais gratuitement et je le dis rajo a pas mal de jeunes yoo xamante ne je suis à leur épaulé projet te xam nañ ne def naa déplacement def naa dérangement et je le gratuitement parce que damay gis ne benn ndaw la boo xamante ne xëy na ñoo bokk bëgg-bëgg si suñu réew il faut que ñun ndaw ñëpp ñu boole suñu xol yi cest ñu ubbi ko ñu bëggante te yàlla rek tax. et ñuy jàppale ñi nga xamante ne xam nga c'est pas pour rien que tu as posé cette question parce que gis nga ne au Sénégal remarque la bu ñëpp def mm. mooy boo dee ndaw <laughs> am na ñoo xamante ne dañuy préférer sax benn homme de média wala benn nit boo xaw a siiw tuuti mm-hmm. que déglu sax benn nit boo xamante ne saa waaye kenn xamul foo toj lañ lay laaj foo toj mm-hmm. déjà c'est une expression qu'on mm-hmm. utilise yow foo toj et pourtant mën na bañ a toj fenn mais mën na toj seen kër googu bu ngeen ko dégloo en gestion de boo ko dégloo da xam ne kii xam nga ginnaaw dof la yàlla def ci moom loo xamante ne ak mandikat boo leen dégloo pendant cinq minutes en tant que psychologue je boo leen dégloo pendant cinq minutes bu ñu waxee cinq minutes di nga si for ñaari dëgg yoo xamante ne xam nga ne dëgg la donte dof lañ maa mandikat lañ hmm. kon nag imagine une personne saine boo xamante ne dafa jug ne am naa idée nga ne doo ko déglu te déjà par refus lañ lay dégloo dans a communication mhm. booy wax saa di ñoom déjà commencé nga wax rek def nañ benn refus mooy que ne li nga wax ñor leen et que ñoo ngi xaar kañ ngay pare rek pour ñu tontu la benn tontu wala pour ñu poser la benn question pour te déstabiliser kon aka cette union pour la jeunesse coach trois minutes moo ci des amoon na beneen question coach mu mel ni suñu euh, parti traditionnel yi fi nekkoon ay PDS ay PS ay AFP ak yi ni daa mel ni dafa commencé di suux lan moo ko waral xam nga. Euh, ñenn ñi sax euh, il faut nga dem mbooloo coalition pour nga mën a jugaat quoi. waaw xam nga xam nga politique jamono la te déception bi ma am li ma bett sax je peux dire moo nekkoon euh, parti socialiste parce que bokkoon na ci partie yi nga xamante ne en Afrique ay parti lañ mais ay école lañ par rapport ak politique bëri na ay homme politique yoo xamante ne fa lañ jaar dañ leen a jàngal politique kon on s'attendait pas à ce que. parti socialiste dem ba mën na dee ba ay personnes am ñuy génn ci nekk ci yeneen xam nga loolu yëpp lu ko waral mooy ñi mag ñi nguur moo leen gën a ñor sax seen appartenance mooy naka la ñuy def ba am koppar naka la ñuy def ba sukkaliku gën na leen ñor réew mi te boo dee seet dafa bëri ay hommes politiques yu rende yu dee par exemple quand on prend euh, Benno Bokk Yaakaar ñaata parti la rey Idrissa Seck depuis vingt ans mu suñu ko gagné ci fi nga xamante ne mooy Thiès aujourd'hui dem nañu gagné ko ndax lan dañ ko xëcc suul ko le cas de Malick Gakou ci waaye grand parti Malick Gakou moom moom waaye Guédiawaye ay Aïdara mii tey toog fa xamul da amul dara compétence politique amul benn non lan la Ahmed Aïdara am compétence politique amu ko mais pourtant Malick Gakou Aliou Sall daf ko nax jël ko dugal ko ci parti bi mooy rendi na ko léegi nag di dissoudre na ko dee na ci biir déjà mooy am na même bu fekkee boo dee seet parti et je le boo dee seet Benno Bokk Yaakaar rek mooy rey yenn parti mooy jël parti yu mag ñi nga xamante ne dafa yaakaar ne c'est des personne de haute facture yu ko mun a daaneel ñooñu la xëcc ci ndànk alhamdulilah ba la jeunesse au moins ñoom xëy na am na yeneen parti yu judd yoo xamante ne jug nañu def en coalition et que li mooy boo dee seet parti bi judd par exemple si je prends le cas de Yewwi Askan Wi c'est en coalition ak ay ay OCB c'est des organisations de comité de base ay association ay ay C boo dee ñooñu ñoo ñoo ñu ñoo ñoo ñoo dajale ñi nga xamante ne ñoo yeewee askan bi ba tey mu mën a am des personnes yoo xamante ne sax ñu ngi doon politique ñoo ñëw tey rejoindre yoo yooyu yi nga xamante ne mooy mooy yeewee askan bi mais tey est-ce que en réalité cela ne veut pas dire que j'approuve euh, li nga xamante ne mooy yeewee askan bi je dis ñett que c'est yeewee askan bi man je dis bien que Sénégal bi ñu nekk que ça soit muy Benno Bokk Yaakaar que ça soit parce que am na des personnes yu nekk Benno Bokk Yaakaar yoo xamante ne tey dañ leen a falaat ci élection la lan lay mhm. teg mooy dañoo liggéey mhm. seul le travail paye mhm. si je prends le cas de euh, un maire tey très modeste un maire très c' est le maire de Médina Gounass il s' appelle Moussé Beydiba c' est quelqu'un boo xamante ne tey boo ko dee seet xamul sax parti il a dit il dit que dans ma commune j'ai juste besoin des personnes yoo xamante ne jug nañ pour le développement de la commune en réalité c' ça la bonne politique mhm. mooy tey yaa xam ban parti nga bokk appartenance la booy dem jongante ci ngay dox booy couleur boobu couleur ngay défendre mais en ce qui concerne le travail pour faire développer nag la commune amatul parti xam nga xam nga xam nga tey si je prends le cas euh, yaa yaa yaa jiite caaxay kaw tey xëy na actuellement je je félicite le jeune maire bi fa nag Modou Gueye c'est c'est mais tey boo dee seet euh, maire fa nekkoon docteur Cheikh Dieng c'est quelque man yàlla dogal na jiite caaxay kaw que ça soit Sidi Sall Alioune Badara Ndiouk ba Cheikh Dieng maire bu fa mus a nekk rek mus naa liggéey ak yow sa cinq mandats yëpp signé naa ay protocol ak yow parce que dama nekk ci ONG bu ñu plan international mais tey par exemple le erreur bi Cheikh Dieng def par exemple erreur boobu moo ko wàccee un un de Thiaroye Kaw de 66 quartiers mu benn côté bu ñuy wax Baxdaat mu occupé 33 quartiers nga toog nga tourné wax askan bi que ne Baxdaat falu ma donc 50 pour cent nga wax ne faluñu la cela veut dire que ne boo demee campagne dañ lay gagné par la force ñun ñëpp am idée que ne ah le maire il s'est ne faluñu ko. tey si ay liggéeyam sax dafa am ay limite mooy que ne mm-hmm. zone bi laa intervenir zone bi duma ma intervenir tey gis na ne ba mu demee élection campagne looloo ko dal et et c' un conseil qu'on donne à l' actuel maire que mu xam ne c' est à dire bu ñu waxee rek maire waxatuma sax maanaam ña la fal waxatuma parti ña bokk ak yow parti fait appel à toutes les bonnes personnes de la commune ñi nga xamante ne am nga yaakaar ci ñoom ñi nga xamante ne leer na leer yàlla ñii c'est des bosseurs mm-hmm. pour parti bu ñu bokk nga liggéey ak mais loolu mooy tardement bi. coach merci beaucoup. nañu nañu Sénégal waaw nañu nañu Sénégal daal ñor. nañu fexe ñun ñëpp que ça soit surtout la jeunesse ñu fexe naka la ñuy def ba changer li nga xamante ne mooy xar kanam réew bi si biir. tàggatool coach. alors je dis euh, merci ñi ñu doon déglu ñëpp di ñaanal nag suñu gaynde yi. le lion de la Teranga yàlla may ndam bu leer nañ incha allah ñu dem final te bu yeggee final it yàlla may ñu ñu jël coupe bi si derje Seydina Mohamed sallallahu wa sallam di wax ne kàddu yi bu jubee woon yàlla suñu borom subhaanahu wa taala bu dëngee rek matadi bi nga xamante ne moom lañ doon di doomu aadama noonee la ñuy nuyoo ñëpp di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah merci. merci beaucoup Mofal merci beaucoup. Mmh, merci Bachir ak Malick ci régie bi.